mbokki Sénégal asalaamu gàtt gàtt tey mooy tey Sénégal ak àdduna yépp ñoo dundandoo ñoo gisandoo li xew fii ci département de Mbour rawatina ci commune de Joal Fadiouth ñëw nañu di def suñu nemmeeku tour ni ñu ko yëgle woon mooy jàpp nañ ni en tant acteur politique rawatina koo xam ne namm ngaa jiite réew war nañoo dem dajeeg Sénégal yépp kenn ku ne nag li gën ci ndaje bi mooy ñu fekk la fa nga dëkk mën a waxtaan ak yow ci contexte bi nga xam ne mooy contexte bi ngay dund door nañu bésu tey bi doore ko njaga ñaaw ndax xam ngeen ni dañ fa am dëj suñu rakk suñu mbokk parti Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ne magam wàññeeku na fi ñetti fan ci gannaaw yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko jóge ñaga ñaaw ñëw nag ci commune de Nguéniène ñëw fa ñu dalal ñu fa dalal bu mucc ayib waa dëkk bi yëpp génn ñu waxtaan ak ñoom déglu leen ci seeni mbëbët ak seeni jàmbat waxtaan ak ñoom it ci suñu gis-gis jóge foofu wéyale tournée bi dem jiwaalo waaye bi ñu eggee jiwaalo la jafe-jafe yi commencé ndax fekk nañ fa ci takk der loo xam ne jéggi na dayoo te ñun ñëpp ñu xam ni takk der yooyu la ci ëpp tey lañu jóge ndakaaru ñu mobiliser leen andi leen fii ci département de Mbour ngir suñu tournée bi ñu ñëwee jiwaalo li ñu njëkk a def mooy dem seeti imam imaamu dëkk ba saafonteeg moom nuyonteeg moom waxtaan ak moom ba ñu jógee foofu ñu dem seeti ñu dem kër labbe seeti monsieur le dem nemmeeku njabootam waaye bi ñu nekkee ci biir salon Euh, euh, monsieur le curé ca capitaine de gendarmerie bi ak ki toftalu ci moom ñëw fekk ñu ci biir salon ne ñu daf ñoo soxla ma ne ko capitaine génnal nga dem xaar ci biti ndax li ngay def du teggin ci république bi ñu nekk te yow biir la biir na la ni bari na kër kilifa diina goo xam ne su doon foofu laa nekk sa fit mayu nga ñëw fekk ma ci biir salon am naan maa soxla donc boo ma soxlee demal nga taxaw ci biti ba ma pare li may def bu ma génnee dinaa wax ak yow bi ñu paree génn wéet ak moom mu ne moom dafa am réquisition préfet moo xam ne dañ ko ne man awma sañ-sañ ci li ma li may def ñu ne ko ah war ñu réquisition bi comme dama ànd ak maître Tall te muy avocat te bokk ci département bi ñu laaj ko réquisition bi mu génne réquisition bi won ñu préfet bind ci ni lim leen sant mooy nañu doxal ordre nañ ko rétablir mooy nañu fexe ba am maintien de l'ordre d'abord mooy fexe ba euh, dal ñu fexe ba dal am su loolu amut it nañ ko rétablir rétablir l'ordre mooy su dee dem na ba dal amul nañu delloo si dal gi ne leen nag loolu mu leen sant mu ngi daw bis ni ki tey nga xam ne moom laa commencé sama tournée bi ba keroog ma koy jeexal incha allah muy le 23 ma ne ko capitaine man lii gis ma lu ko fi jar ndax man gisuma lu fi lu fi perturber ordre bi bi ma ñëwee dëggu ci dëkk bi ba léegi imam laa seeti jóge ci imam ñëw seeti euh, monsieur le curé te su ma jógee fii euh, ñu toogal fii xalif général de Mourides laay seeti bu ma jógee foofu am na ay mbokk yu nekk fi ma seeti leen bu ma ci pare dinaa dem fële ca quai de pêche bi ci port ba man gis ma fi andi perturbation mu ne ma waaw attroupement dafa am fii ci buntu jàngu bi ma ne ko su attroupement mi ma daanaka kenn dégguma mu woo kenn ne ko génnal yàllaa def nag ma ne ko yow capitaine su ma ñëwoon seetsi la sa kër mun naa ñëw gaare oto dugg man dong waaye balaa may génn attroupement dina am foofu waa koñ bi bu ñu yéegee ni Ousmane Sonko ngi fi ñu bari dinañ génn ñëw taxaw loolu nag yàllaa ko def mënuma ci dara yàllaa ko def dama ko koy sante ndax du sama mérite man soxlawuma organiser ay film ak ay théâtre ci VDN bi di génn ay nit taxaw pour ñu waxal ma yàllaa ma may loolu su ma génnoon taxaw fii léegi ci buntu kër gi koñ bi fees dell dama koy sante yàlla waaye man wowuma kenn ne ko génnal ma ne ko démb bi may def sama live ndakaar dégg nga bi may wax ak nit ñi nee naa leen ñëw ma meeting ñëw ma campagne électorale defuma karawaan waaye nag su ma duggee ci dëkk waa dëkk ba yépp daje ci pénc bi ne dañ may teeru loolu moom gannaaw yàlla kenn mënu ci dara ñu génnee ci noonu jóge ci kiire bi di dem ci euh, euh, balaa ñuy dem d'ailleurs ci ñi toogal foofu communauté Mouride ñu ngi doon jàdd pour seeti Euh, dégg nga maam euh, quartier traditionnel Joal bi ñoom ñoo ne woon dañu ñëw seet si leen ci fi nga xam ne mooy fi ñuy daje def grand place yooyu sax yu ci bari gis ngeen ko ci live bi ñu dem foofu teg ñoom gis lu toll lu kenn xamul ci ay alkaati ci biir dëkk bi seeni camion seeni pick-up lu nekk ñu jëlee ko ndakaaru andi waaye bi ñu génnee foofu ba dem ci troisième étape bi wala quatrième étape bi dugg ci biir jumaa ji di nuyante kilifa ya ci lañu commencé ñoom di sànni ay lacrymogène ci biti muy lu ñaawa ñaawa ñaaw ñu génn continuer tuuti ndax dama am goro gu dëkk foofu ci kaw tali bi mu wàcc dugg di nuyu samay goro ñu commencé di sànni lacrymogène yi ci buntu kër ga lii nag niñ koy tuddee mooy intimidation la ko ñëpp tuddee waaye man jàpp ma ni intimidation la li ma jàpp mooy ki leen yebal ñoom ñëpp muy président Macky Sall tiit na tiitaange goo xam ne jaaxle na jaaxle goo xam ne ñàkk naa gëm yàlla ñàkk gëm goo xam ne parce que lu jeex jeex na loolu yàlla bi ko yàlla tuddee ni moom moom la yàlla da koo yombalal yépp waaye bu yàlla tuddee ni jeex na màndarga yi day feeñ ne fang waaye moom ñàkk a di yàlla gi mu ñàkk gëm yàlla moo tax mu jàpp ni war naa mën a forcer mbir yi ba jàpp na ni Ousmane Sonko warul yëngatu ci réew mi seen stratégie ñoom mooy fexe ba kuy politik rek na nga toog ndakaaru bis bu ne ñu dugal la ci ay débat yu ñàkk fulla yu amul solo ñu jël ko amplifier ko par voie médiatique ñu bàyyi li nga xam ne mooy fulla Sénégal nekk ci débat yoo xam ne am diw andil diw diw wax na lii diw for na diw saaga na kii noonu nag lañuy ñuy piéger homme politique yi ba ñu bàyyi farata gi farata gi kuy kuy homme politique fi toll nii mooy dem dajeek askan wi rawatina nag ñun ñi nga xam ne biir nañu boo ubbee xolu sénégalais yi ñoo ngi ci biir fu ñu génn sénégalais yi woon ñu cofeel ak mbëggeel waaye surtout yaakaar gu ñu am ci ñun ak lañuy liggéey moo tax piège boobu bill boobu nga xam ne dañ koy alimenter jaarale ko ci waxu média réseaux sociaux ñun dañ koy yëkkati teg ko fële dellu si ci réalité bi te réalité bi mooy feeñu jóge ci àll ba fekk fa sénégalais yi saafonteeg ñoom ñu wax ñu seeni jafe-jafe ci suuf suñuy jaay seeni jafe-jafe ci ñàkk liggéey seeni jafe-jafe ci seeni pajukaay seeni école seeni jafe-jafe ci seen eh, ji seen seen seen seen récolte yi nga xam ne jaaxle nañ ndax dañ ko mën a jaay am déet loolu mooy réalité Sénégal te ci réalité boobu la fas yéene nekk fukki weer yi di ñëw may wax nag Macky Sall pour mu dégg ko bu baax ndax man du wax ak ministre am ab suq la rek bu ñuy yónni du ma wax ak préfet dañ koo def loo rek mu def du ma wax ak ñii nga xam ne ndeysaan ñoo ci gën a sonn alkaat yi ndax li ma gis tey ci gendarme fii ci Joal te li ci ëpp jóge ndakaaru bi ñuy dugg mbuur li ma gis tey ci gémi ñu rangale seeni camion te li ci ëpp jóge ndakaaru ñu leen di sonnal di leen fanaanloo ci mbedd mi waaye baax na ci tournée ndax gëm naa ni nag maa ngi doog a am kaaraange ndax lii ma gis nii président la république sax duñ ko jalonel noonu buy génn waaye may wax ki leen yebal ñoom ñépp muy Macky Sall ma fàttali ko ni bi ñu dooree jàkkaarloo moom ak man ba tey xam na ni su amee ku ragal moroom moom moo ma ragal moom Macky Sall xam na ni lu toll nit tarfata ayn ci ragal lu jëm ci moom man awma ko bu doon dese na sago ak xel dina xool neneen nu muy doxale moom moo yor nguur yor l'armée yor police yor gendarmerie yor justice te su tëddee ku ko yeewoon trois heures du matin ko usman sonk mu yuux àll bi yëpp waaye waaye awma lu toll ni tarfata ayn ci ragal ko malgré li mu yor yëpp